nga xamante ne mooy mbind mi jëm ci li nga xam ne mooy wàllum élection locale yi ñu dëgmal ginnaaw bi ñu ko dooree ak ay jafe-jafe fii ci diwaanu Kër Massar noor tey ji yemoo ak bés bi nga xamante ni ci lañ ko waroon a ndar képp fii nga xamante ni nag mooy ci Kër Massar noor rawatina centre bii di Massar Dieye mbir mi mu ngi jeexee itam ak ci li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe yu tar activiste bi di Pape Abdoulaye Touré di wax ne daal ay scandale yu rëy rëy lañ fi nemmeeku. démb ñëw nañ fi pour suñu carte. bu buñ fi ñëwee di bindu ji aussi ñu xamal ñu que ni carrément mënuñoo bindu ci parce que nit ñu fi nekk dafa bëri yaa ngi dégg coow li noonu ci biti tey si suba ba léegi nii lañu nii la ñu yendoo fii ngeen nekk nag mooy commune nord bu Kër Massar école bii mooy école Massar Dieye fii la commission électorale bi nekk soo su la mayoon accès tey nga dugg ci biir di gis ne y a plus de douze classes salle de classe waaye benn salle de classe képp lañ ubbi pour ces centaines ces milliers de de de de citoyens yi dëkk fii ci Kër Massar pour ñu mën ces bind si. donc euh, comme ni nga koy déggee noonu coow li ci biir man jàppoon naa ne sax dañuy xeex et depuis ce matin c'est comme ça heureusement il y a des gendarmes ñooy xaw a calmer un peu. donc loolu moo fi xew mais buñ fi ñëwee démb ñu renvoyé ñu tey ñu ñëwaat tey aussi tôt le matin rien que pour bindu ñu bindu ci liste de présence pour ñu mais à notre grande surprise am ñeneen ñoo xamantene tok nañ ba ay 13h-14h, ñew di dugg suñu kaw di ñew ñu jox leen seen récépissé man yalla sutural la main dans le sac ni mu leen la main dans le sac Il y a une de mes camarades étudiantes bo xamantene bokk fi ñoo bokk dëkk fi mu ñew mom tamit di bindu mi ngi ay vers h depuis 8h. man dañu woo moo woo même pas cinq minutes moom ñu woo ko parce que suñ la wooyee da ngay ñëw nga dugg ci biir soo duggee ci biir dafa amaat beneen kë booy suivre war a patienter ba keroog ngay jàkkaarloog ba ngay ngay toog ci commission bi pour mën a bindu bi ñu ma wooyee temps boobu may toog di patienter di xaar moom dañu ko woo c'est pas pour que mu ñëw patienter wu wala pour dara dañoo dafa ñëw jël récépissé dem yoonam. bon moom benn euh, métit bu ndaw rek bi nga xamante ne moom laay déplorer. tey quoi parce que depuis comme na ma na ma ko sama grand bi waxee rek depuis ce matin on ba léegi mun ñu fexe bu dugg ba tout récemment man maa ngi soog a dugg ay 5 heures 37 laa soog dugg parce que am na lu fi nekk ñi fiy jiitu duñ leen jël au ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi mujjee ñooñu la ñuy jël parce que seen i nit la ñu mais man yaakaar naa ne Sénégal bi benn réew la ñu ñëpp ñoo ko bokk. bu ñu demee ba dugg ci genre affaire yi nii amatul kii sama nit la kii du sama nit. activiste bii di Pape Abdoulaye Touré ŋaññi bu baax ba tey ñi nga xamante ni ñoo yore nguur gi ndaxte moom li mu gis daal mooy que ni commission yi lu ñu waroon a yokk lool la surtout fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Kër Massar. actuellement nous sommes en train de voir pour xool ndax est-ce que. 18 euh, heures su jotee dinañ ko tëj wala duñ ko tëj parce que ce n'est pas normal du tout tey mooy dernier jour 18 waruñu waruñu ko tëj dañoo war a bàyyi ñëpp bindu par que nit ñi ba léegi ñu ngi toog di xaar ñee gis devant la porte ñëpp ñu taxaw fa mobiliser wu ñoom ñëpp ils sont là depuis 8h, 9h. nous bientôt 18h. heures te ba léegi kenn mënu leen woo donc loolu je pense que nous tenons à à le déplorer nous tenons aussi également à le dénoncer parce que li am si mooy que ni état waroon na jël matuwaay yëpp commune bu toll ni Kër Massar nous avons fait une commission. La commission, il y a 6 personnes, 6 personnes. Il y a un accès à la table. une table. Nous avons une en charge. c'est milliers de Sénégalais. Mais c'est impossible. Je vais vous montrer un petit peu de Actuellement, il est l'heure de la descente. Mais je sais que nous avons fait une Parce que tous ces gens-là sont là depuis 8h, 9h, 10h. ba léegi am na ñoo xamante ne ñu bëri ci ñoom kenn woowagu leen. activiste bi daal di ñi bu baax ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci commission yi ndaxte kat gis na ni am na ci ñoom ñoo xamante ni dañuy laaj nit ñi ñatt téeméer ngir mën leen a bind waaye itam mu ŋàññ bu baax ñi nga xamante ni ñoo ànd ak l'honorable député maire Moustapha Mbeng ndaxte kat gis na ni li nga xamante ni ñu ngi koy jëfee jaarul benn yoon ci li nga xamante ni moo di yoon. ma la sànq bi may woo avant laataa nga woo fu ma toogoon kenn ko jigéen moo ñëw fekk keneen toog mu ne ko moom mu mu koy wax waxuma ko mais dama ko dégg mu koy wax keneen ki ne 1000 francs la joxe ab nit bu bokk ci commission bi ñëw defaral ko récépissé la ko jox maanaam moom duggul sax di rang ci biir pour di jàkkaarloo commission bi moom récépissé la la joxe récépissé lañ ko jox alors que le dépôt doit être individuel le dépôt est exclusivement individuel nit bu war a bindu da nga war a ñëw toog jàkkaarloo commission bi joxe sa carte d'identité joxe sa information yi ñu la laaj yépp nga bindu mais moom deful loolu dafa joxe 1000 francs am toog as diir ñu jox ko comme euh, récépissé mu dem ñibi génn na dem ñibi et pourtant ñu ko fi jiitu fuuf ñoo nekk fii ñeneen ñi nag dañoo joxewul sax 1000 francs ci mouvance bi lañ bokk mooy gaawu Moustapha Mbengue yi. ñooy ñëw fii lañ doon toog tey suba ils étaient là fii la ñu toog di trier ay documents actuellement ñu ngi ci biir mairie bi di trier ay documents ba ba fu mu leen neexee ñu jël documents yi. dugg ci biir dugal nañ fi ñetti boolu ñetti boolu bool yoo xamante ne nee nañ ay boolu añ la jàpp nañ leen ci bool yoo xamante ne ci biir dafa am ay document ay ay ay fiche yoo xamante ne c'est pour s'inscrire donc ñu koy jàllale. naam sax bind na ba noppi waaye nag moom activiste bii di Pape Abdoulaye Touré mi ngi xam le ni du ñibbi benn yoon lu dul ni daal day xaar 18 jot ba xam ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci commission yi dinañu wàcc waawam déet. ñee nga gis ci ginnaaw ay citoyen lañ yoo xamante ne bokkuñu beneen parti politique ñii ay citoyen simple la ñu bëgg a remplir seen droit euh, seen devoir seen devoir euh, citoyen tey soo duggoon laaj leen tey partout ñoom ñëpp a kaas. ils sont là depuis le matin ils n'arrivent pas à s'inscrire donc ça c'est vraiment déplorable et que nous espérons aussi que parce que man bindu à 5. jox nañ ma sama Mais sànq mais à 5. parce que man dama bëgg taxaw ba ndax est-ce qu'effectivement effectivement am nañu fitu 18 h fi depuis ce matin jusqu'à là ñu ne leen dem leen ñibbi dootoo leen bindooti te ñu xam dernier jour loolu moo tax ma toog fi boobu ba et je vais continuer à y rester pour voir est-ce que dinañ tëj te nit ñi parce que toute personne bi fi avant 18 h a le droit wu bindu ci liste électorale parce que c'est un droit euh, absolu c'est un droit fondamental.